ndax man d' accord d' accord d' accord Ibrahima merci beaucoup c' est gentil. ayca dégg ngeen euh, kàddu yi nga xamante ne euh, yëkkati na ko moom Ibrahima Sall maman bàyyi la ñu def tour tour de rôle après ñu doog a yëkkati jotaay bi. voilà comme ni nga ko déggee rek moom yaakaar naa ni euh, analyse am moom mënuñu see teg leneen ndax nekk na koo xam ni comme ni ma ko waxee euh, sànq ba léegi xam-xamam màcc na bu baax a baax jëm ci euh, mbirum détention en tant que ex détenu aussi moom dund na ko donc lu ñu mën a wax sur ce rek mooy peut-être interpeller ñi nga xamante ni ñoo di les autorités compétentes à savoir le président son premier ministre ak le ministre de la justice peut-être gisoon nañ El Malick fan yi passé bi ñuy wàcc tabaski bi ni nga xamante ni noonu la amoon Euh, noonu la amee woon réactivité di wàcc sur le terrain surtout boo maraîcher ngir euh, taxawu ñi nga xamante ni ñooy euh, voyageurs yi ñi nga xam ne ñoo doon julli ji itam daal di dànkaafu transporteurs yi jëm ci wàll yi peut-être tey jii noonu lañ doon xaaree le ministre de la justice ki nga xamante ni moo di parce que depuis ce matin gis nañ yenn ci ay réaction déglu nañ ko ñuy wax ni 8 heures la mbir mi tàmbali jusque là il fait 14 heures passées donc le ministre de la justice su fekkee ni peut-être mi fii Sénégal Euh, euh, daal di wàcc euh, fi nga xamante ni moo di fii di camp pénal daal di xool si li nga xamante ni moo fi xew parce que loolu la ñuy xaar ci ñoom et puis gis nañ ko euh, je ne vais pas m'arrêter sur l'exemple de El Malick mais aussi le ministre des télécommunications Alioune Sall gis nañ bi Walfadjri euh, doon amee euh, li nga xamante ni moo di une petite incendie ñëwoon na moom it foofee daal di def li nga xamante ni moo di taxaw seet lu jëm ci mbir mi donc tey ji foofu lañ doon xaar ki nga xamante ni moo di Ousmane Diagne moom it mu daal di ñëw daal di ñuy moom it mu daal di ñëw rek daal di teewee li nga xamante ni moo fi xew daal di itam euh, jël ay matuwaay parce que loolu la ñuy xaar ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk wàll wi tey ji euh, réaction yi benn la li ñuy wax mooy interpeller le président waaye ki ñu gën a interpellé mooy ki ñu dénk wàll yi muy le ministre de la justice donc je pense que euh, tey mënul woon def leneen lu dul ñëw teew fi daal di xool li nga xamante ni moo fi xew daal di jël euh, li nga xamante ni moo di ay euh, solution jëm ci mbir mi parce que quand même bu ñu sukkandikoo rek ci ay kàddu Ibrahima Sall waaye itam réaction yi ñu fi jot jël ba tey nekk na mbir moo xamante ni du lu bees du ñu ne guléet la ci prison yi dañ koy faral di fi gis donc tey ginnaaw assises yi nga xamante ni jóge nañ ci ak li nga xam ni itam moo di tënk yi ñu fa jëlee mujj conclusion yi ñu jébbal le président de la république Bassirou Diomaye fay moom nag euh, moom comme niñ ko xamee rek moom mooy war a jël lay dogal ngir euh, xool ndax dafay daal di maintenir yooyu les conclusions am déet waaye bu ñu sukkandikoo rek comme ni ma ko waxee ci thème bi nga xamante ni moom la assise bi porté woon muy réforme et modernisation de la justice donc yooyu coppite ak it ñu daal di euh, soppi li nga xamante ni dafay euh, méngoog jamono tey loolu la ñuy xaar su ko defee condition de détention yu précaire yi nga xamante ni détenu yi ñu ngi koy dund ak it manque de sécurité bi nga xamante ni mooy sévir au sein des prisons tey gis nañ loolu ci camp parce que peut-être sécurité boobu doyoon ni nga xamante ni noonu lañ doxalee di sànni lacrymogène ci benn chambre foo xamante ni c'est fermé euh, quand euh, nekk na lu déplorable dafa jéggi dayoo franchement donc euh, lool nag la ñuy xaar moom mi nga xam ne moom lañ dégg euh, wàllu mu daal di ciy jël ay matuwaay yoo xamante ni su ko defee mbir mi dina nekk loo xamante ni duñu ko nemmeekooti non seulement ci camp waaye prison yi nga xam ne yëpp ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal. voilà di fàttali que ni ñi nga xamante ni ay détenus la ñoom tamit dañu am ay droit yoo xamante nii dañ leen ko war a jox. donc je pense que tey jii bu ñu nekkee si yenn conditions yi war nañ leen a sóoraale si lu bëree bari ba nga xamante ni euh, yenn circonstances yi nga xamante ni ñu ngi koy dundee parfois ñu mën koo moytu gënoon na rafet trop comme ministre de la justice Ismaïla Ousmane Diagne wala kenn benn autorité sax comme nu ko El Malick defee woon mu daal di teew dina nekk benn acte boo xamante ni acte boo bu ñuy rafetlu wa mais bii ko gis nañ li nga xamante ni moo taxawaayu la police et la gendarmerie euh, je pense que xel mën na dal mais lu gënoon mooy comme nuñ ko tàmbali woon gis ay autorité ñu daal di wàcc sur le terrain pour mën a xam ne ba bu baax a baax lan la ñuy subir ñi nga xamante ni ñoo ay détenus jot a ji si suba gi ay 8 heures nekk na loo xamante ni jaaw la li nga xamante ni moo di chambre huit bi nga xamante ni dinañ fa amal ab contrôle ba nga xamante ni mujj na jot jéeye ba nga xamante ni euh, ñu bëri si askan wi ñu dëkkee woon fii xawoon nañoo tiit xawoon nañoo jaaxle je pense que tey jii nii ni ñi nga xamante ni ñoo sayoo si wàllu woowu muy ministère de la justice ak ñi nga xamante ni ñu ngi fi war nañ xoolaat bu baax tey sàmm ñi nga xamante ni moo di kaaraange détenu yi parce que détenu yi amul bu sañoon am li nga xamante ni dina am condition de vie yoo xam ne dina ko permettre pour mënul dund convenablement bañ bu ñuy nemmeeku yenn yi dañuy jàppee ne ñii kat ay prison lañ donc lu ñu leen def rek baax na di jàppee leen ay esclave alors que loolu mën na bañ a nekk te dañoo am ay droit ak ay devoir yoo xamante ni war nañ leen ko respecter ba nga xamante ni lépp lu fi nemmeeku rek mën a jur ay saafara yoo xamante ni gis nañ ñi nga xamante ni ñoo fi teew di interpeller ñi nga xam ni di autorité yi mel ni son excellence président de la république ak son premier ministre ak ministre de mais ma bëggoon ñu taxaw ko mooy xam nga aussi euh, situation carcérale au Sénégal ça date pas aujourd'hui pour dire la vérité bi ñu daree wax ne dañu war a dañu war a délocaliser kaso wala dañu ko war a yaatal dañu war a xoolaat li nga xam ne mooy seen situation dafa yàgg Euh, Sénégal lii c'est pas la première wax nga ko maman wax na ko sànq am na assise yu ko jaar le 17 mai la ñu war a déposé euh, recommandation espérons que dinañ tenir à répondre mais amul Sénégal ñu yeewoo Sénégal te naqaroo ko ko wala mais aussi il faut aujourd'hui la ay nit ñu tibbal leen say mbokk ku mën a lekk andil la ko pour nga lekk même bu fekkee fuuy dafa am war nga mën a ormal ñam bi parce que boo seetloo d'après version bi Ibrahima Sall joxe fuuy yi niñ ko doon defee moo baaxul moom këpp seen lekk yi loolu moo leen merloo ñu commencé jël seen matelas yi génn di ko taal donc ñoom benn moyen de defence la ñu am muy rebelle wu parce que yoruñu arme yoruñu dara ay détenu lañ déjà fi ñu nekk mënuñu génn maintenant bu fekkente ni ñoom dañu rebelle wu ñu dóor leen ay lacrymogène forcément blessé mënul ñàkk parce que espace bi ñu nekk déjà dafa xat maintenant wax ji mooy est-ce la solution loolu benn question la beneen question bi mooy ñoom as moom association bi nee na entré na en contact ak l'administration mais amul réponse message na seen njiit bi tontuwu ko kon dire que moom li mu war a def def na ko maintenant li mu wax am na ak amul ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor euh, administration bi ñoom ñoo war a génn apporter ay leeral beneen bi mooy intervention ministre bi parce que gis nañ ne autorité yu bees yi bañ fi teewee ba tey situation bu am ñëw nañ maintenant lu tax ñëwaguñu camp naa bu ñu fàtte ne affaire bi léegi la am espérons que ni tey balaa ñu fiy jóge wala dans la journée ñoom dinañu agir le plus rapidement possible mais situation bi du situation boo xam ne da ngay ñëw rek de ko dans l'immédiat il te faudra des réformes yoo xamante ne nii dañ koy mettre en exergue au profit des détenus maintenant comme li ñëpp di wax Sénégal ñëpp dañu yàgg di joxoñ baaraamu tuuma justice bi tey duñu ne ñi fi nekk ñëpp ñoo nekk si dëgg parce que ku defu am na ñoo xam ne def nañ defuñu mais euh, li nga xamante ne moom mooy euh, li ñu war a retenir ak ak yelleefu doomu aadama muy la dignité humaine nit yi dañ ci war a bàyyi xel moo xam ngay détenu moo xam nekkoo détenu peu importe parce que ñoom dañu yor ay famille yor ay njaboot am na ñoo xam ne defuñu dara te fii jàpp nañ leen fi émati bi muy am ñun ñëpp ñu ngi fi woon on te témoin oculaire des faits donc yooyu yëpp dañ ciy tenir compte beneen bi mooy gis naa mu interpellé moom ba tey ci kàddu Ibrahima Sall donc la ñuy la ñuy indee suñu suñu suñu analyse nee na ministre bi dafa war a génn daar daar dafa war a agir c'est tout à fait normal mais moom mi yor association bi nee na c'est pas la première fois lii di xew donc cela veut dire que peut-être ñoom yàgg nañ cee dox ay amuñu ci retour donc c'est le moment ou jamais par rapport ak li fi jot a jaar ñoom ñu mun ci apporter ay solutions une bonne fois pour toutes parce que man parfois je me dis que jàpp tëj ko ci benn espace liggéeyul dara tey nga yóbbu woon ko fu libre foo xamante ni peut dina mën a am activité yaakaar naa du tala nekk di def yenn yi suñu teer yaa nga nële woon nañ mën a déplacer puis délocaliser prison yi yóbbu leen foofu bu ko defee insertion insertion la ñuy am d'abord si prison bi laataa sax ñuy génn di retrouver li nga xam ne moom mooy seen liberté donc te yooyu yëpp bokkoon na ci assises yi point yoo xamante ni ex euh, détenu yi ba ñu fa demee bokk na ci seen revendication euh, mujj moo xam aussi euh, suppression article 139 bi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni boole nañ ko ci réforme yi maintenant comme lii jot na xew man dama jàpp ni phase la boo xam ne dafay permettre réforme yi ñu mettre ko en exergue jéem ko appliquer ba pare xoolaat nag la situation de l'administration pénitentiaire parce que ñoom souvent da ngay gis ci détenu yi ñoom aussi dañ leen di pointer du doigt léegi nag wax ji mooy nekkoo ci biir prison yi nekkoo au cœur de ça xamoo lan mooy dox seen diggante ak détenu yi comprendre ngeen mais li ci am solo ba am solo mooy euh, nañu agir le plus rapidement possible parce que li xew nii mënoon na catastrophique mënoon na jur leneen parce que seen espace bu xat bi aussi nga dóor ci ay lacrymogène ku ci nekk tey mënoon nga si ñàkk sa bakkan mara day on on ne souhaite donc euh, am na ku ma seen ne le mu génn dama koy jéem a approché euh, parce que ñun aussi on la pour joxe la bonne information parce que ñun woote nañ ci numéro direction bi kenn jëlul donc ba tey ci suñu ay euh, investigation wala suñu ay recoupement dañuy topp kaaw administration bi ba xam dinañ mën a am seen version wala surement dinañ def communiqué pour publier pour mën a ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy affaire bi voilà mu nekk loo xamante ni ñu koy ñaawlu bu Euh, ñu daal di ko yeewoo fii si camp bi gis nañ li nga xamante ni amoon na fi mu nekk affrontement yoo xamante ni ñu ngi dox si ñi nga xamante ni ñoo fi yeewoo euh, mu nekk tey jii loo xamante ni. Euh, gis nañ ko ñu bëri di ko ñaawlu parce que je pense que laalal j'espère que noo ko waxee am na solo parce que bu ñu gisee tey jii nii ñi nga xamante ni ñoo di autorités yi teewuñu ba heure bi day xaw a day xaw a doy waar parce que bu ñu waxee sécurité sécurité nekk na loo xamante ni lu am solo la euh, si si si réewum Sénégal je pense que rawatina fii nii ñi nga xamante ni ñoo faree fii si camp bi ak condition de vie yoo xamante ni ñu ngi koy kii dañuy xiif bëgg lekk duñ ko am dañuy bëgg yenn yoo xamante ni dañuy seen bopp tout un problème mais bokk si tey jii loo xamante ni seen devoir la ñu war leen ko respecter ba nga xamante ni at euh, de telle sorte que dañ ko dañ see waroon a nekk veiller ci ba nga xamante ni kenn ku si nekk boo ko soxlaa nga mën koo def parce que je pense que tey jii nii bu ñuy wax euh, wàllu assise yi ba yaakaar nañ problème yi nga xamante ni moo fi nekk lool bëri tax na ñi nga xamante ni ñoo di njiit yi ñu daal di ko sàkku pour que ñu jël ay réformes ngir sa laat taxawaay bi nga xamante ni moom la justice am ngir xool kenn ku si nekk euh, sa wàccuwaay ak taxawaay bi nga si war a am ñu jéem la ko jox parce que bu ñu naree bàyyi ni yaakaar naa dina